إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين gannaaw loolu mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala mboolem xéewal yu nekk ci ñun mbaaxam la gum ñu baaxe ñu ngi seede ne moom dong moo yeyoo ñu koy jaamu moom dong yeyoo ñu koy yaakaar moom dong yeyoo ñu koy ragal moom dong moo yeyoo ñu topp la nga xam ne mooy ay ndigalam yam jaarale woon ca yonentam ba muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw loolu mbokk julit sunu xutbab tey bii mi ngi jëm ci fàttali ana lii nga xam ne mooy ak laab lii nga xam ne mooy ak set ana ban place la am ci lislaam kii nga xam ne mooy njiitu réew mi ak ñi koy jàppale yal na yàlla jàppale leen ci luy jëriñ réew mi àdduna ak àllaaxira gis nañu ne semaine bii ñu ngi woote ci réew mi yépp ne nañ ko set setal loolee mbokk mbir la moo xamee ni nii ay jullit buñ koy dégg war nañoo bàyyi xel waaw seen diine ana fan la leen tegal ak cet lu jiitu yow jullit xamal ne suñu borom day nee na moom moo cuub jullit ñi ci benn couleur jullit ba nekk tey ca Japon jullit bi nekk tey Sénégal ak ba nekk Amérique ñoom ñépp tey ajjuma ji mboolem góor ña majeur ñi ngi rafet njort ne sangu nañu dem nañ ci jumaa ya ñoom ñépp bu ñu xëyee daan julli waxtu juróom ñoo bokk koor ñoo bokk acc loolu it ñoo bokk bëgg-bëgg yay am ca biir ak lay am ca biti loolu lépp da ngay gis loolu la yàlla cuubee la nga xam ne mooy jullit ni daa bokk ci cuub googu nag mbokk jullit suñu borom sant ab jullit mu jéem a sàmm laab ca la nga xam ne muy ca biir jéem a sàmm laab ci biti jéem a sàmm laab ci lépp loo xam ne nii wër na ko suñu borom subhanahu wa taala bokk na ca aay yum jëkk a wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa siyaabaka fatahhir wa rujza fahjur mooy ayow yonent yàlla bi fexeel waay laabal la nga xamee ne nii moom mooy sa yére fexeel laabal la nga xam ne mooy sa pas-pas ba loolu mbokk julit bépp julit boo xam ne nii moo ko tey daal di taq ripp ak sobe mënuñ koo dindi dindiwu ko loolee di ngay gis day yàq jaamu yàllam gu mag googi di julli nii la ko lislaam jàngale loolu moo tax ba suñu borom yàlla daa bëgg jullit bu laab jullit bu correct jullit bu set wecc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw na ak sahaaba yi mu ne leen xam leen ni day ajjana koo xam ne xolam bi lu toll ni la gën a tuuti ci poussière mi ngi ci xolam ca la nga xam ne ak rëy la kooku de du tabbi aljanna saxaaba yi am ci ñenn ci ñoom ñu jaaxle ba kenn ci ñoom jóg na ko waaw yu mu yàlla yónni loo xam nag ci koo xam ne bëgg na moom toujours ay yéreem day rafet ay dàllam day set day rafet yonent bi alayhi salaam na ko déedéet yàlla dafa taaru dafa bëgg ab taar la nga xamee ni nii moom mooy ak rëy mooy la nga xamee ne mooy bañ dëgg ak xeeb la nga xam ne muy nit ñi waaye rëy nekkul ci sol yére yu set sol yére yu taaru yére loolu rëy nekkul ci loolu a rasul sallallahu alayhi wasallam taxaw ak sahaaba yi ci la nga xam ne mooy li suñu borom wax ngalawaay jullit bi la nga sax ci fitra ca mooy ne yàlla bëgg jullit mel ko mu ne fukki mbir yi day jullit da koo war a sàmm la ca jiitu mu ne mooy nga wàññi la nga xam ne mooy say moustache gis nañu ni boo demee ci tubaab yi ci seenum njàngale mooy lii di ay moustache ku la ko gën a sëqale moo la ëpp personnalité su mag ñi fi nekkoon yépp xam nañ kan mooy Faidherbe malheureusement am na jullit ñu bari ñu leen di roy ci loolu waaye ay moustache dañ ko war di wàññi ñaareel ba mu ne na ngeen bàyyi la nga xam ne mooy seen sikkim yi ñetteel bi mu ne na ngeen di taqoo soccu dem na sax ba ni su ma bañul woon sonal sama xeet danaa leen wax bu kenn julli ci soccuwul gannaaw ba mu ne ngallaawaay dee leen sarax ndiku ca kuy jàpp fokk nga sarax ndiku kuy jàpp fokk nga gallax ndiku loolee nga xam ne julli da koy def ay yooni yoon ci bis bu nekk mu ne na ngeen di fexe di lelli seeni we na ngeen fexe ba di raxas seen diggantey baaraam yi na ngeen fexe ba di wat la nga xam ne mooy seen naq yi ak seen poqtaan yi na ngeen fexe ba képp ku dem wanag su amee ndox mu defaroo am ndox mboo ko xoolal lii suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo ko jaarale ci làmmiñu yonentam soo demee armée ak seen discipline li muy sévère sévère doo fa fekk détails yi nga xam ne détails yuy biir la armée di ko jàngale abadan waaye jullit mooy ka nga xam ne yàlla da koo cuub ci biir cuub ko ci biti mu boole ñaari set yépp mbokk jullit suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo ñu sant ci ñuy jóg di laab bala ñoo dajeeg moom ci julli loolu moo tax ba jullit heure bu jógee ak laabam ma ngi koy bàyyi xel keroog ba mu nekkee ca douche ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fekk mu romb ñaari xabru mu ne ñii day ñi ngi leen di mbugal doonte ne ñoom li ñu leen di mbugale jàppoon nañ ne du lu rëy ca moo ne rëy gaa tax ñu leen di mbugal mu ne kenn ki day dafa daan dox ci rambaaj diggante doomu aadama yi keneen ki nag su ma saan dem ca wanag wa di tuur ndox du bàyyi xel ndox may tuuru ci ay yéreem di tuuru ci yaramam mu jóg noonu dem jàpp ak moom julleeg moom loolee yàq ak julleem looloo tax ñu koy mbugal mbokk mu lay won kon yow jullit boo demee ca wanag war ngaa fegaru bu baax ba fexe lépp loo xam ne sobe la doo ko génnaale ca wanag boobee yéen ñépp yéen a bokk xam ne julli gi ñuy julli suñu borom dañoo sant bala ñu koo def nañ jóg borom bi waxul jóg leen ngeen jàpp rekk waaye dañu koo détailleel yéen jullit ñi bu ngeen dee jógee bëgg a julli raxas leen seen kanam raxas leen seeni loxo masaa leen seen bopp raxas leen seen tànk loolee nga xam ne mbokk mooy catu doomu aadama di jëkk a jokkoo ak la nga xamee ne nii mooy ay poussière ak sobe suñu borom mu ne nañ ko raxas te xoolal jullit bi gën a digg doomu lum bon bon dana jàpp ñetti yoon bés bu nekk loolu lum bon bon loolu bañ ko yàlla déggalee yonent bi aleyhi salaam teg ci ne déedéet bu leen dem ci benn raxas bi kanam gi raxas ko ñetti yoon loxo ñetti yoon loolu lépp ngiree laab ga gën a doon loo xam ne nii lu mat la mbokk jullit suñu borom teg ci ne su dee da ngeen a ànd ak janaba janaba boobee mooy heure boo xam ne mëni yu dafa génn ci yow heure bu góor ak jigéen àndee doonte ne sax mëni yu génnul heure boo xamee ni nii jigéen pare na ca la nga xamee ni nii mooy ay réglam heure boo xamee ni jigéen pare na ca deruti wasinam ñii ñépp suñu borom mu ni bala ngeen ni julli na ngeen doon ñoo xam ne nii ñuy sangu lañu loolu mbokk mooy ci taarub lislaam doonte ne ni xatta suñu borom jalla wa ala moo ñu wax ne seeni soxna yi day seeni tool lañu na ngeen dikkal seen tool nu mu leen neexe waaye nag gannaaw ba mu ne ah fexe leen ba su dee ànd nag règle nag bu leen ko jege waaw bu règle bi jeexee nag suñu borom mu ne même bu règle bu jeexee bu leen ko jege xanaa lu dul dafa dem sangu ji ba pare fa iza tatahharna faatuhunna min haysu amarakumullah ca mooy gannaaw ba mu sangoo ba pare mbokk lii mooy cetug lislaam moom mooy laabug lislaam goo xamee ni nii noonu la ñuy teree xaraamal ci ñun na góor jigéen ñi di xa di àndi mu xaraamal ko ci yow xataa diggante ak sa soxna ndax la nga xamee ne moo nekk ci loolu ak ci ak sobe mbokk jullit suñu diine mu ngi nii heure boo jógee di julli yaa ngi laabal sa bopp rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na ni ndox mi di raxasa cër yi noonu lay raxasa bakkaar yi ba bakkaar yi dana nekk di rot di rot ba ànd ak toq ndox ba mujj wàcc ca la ñu waxoon sallallahu alayhi wa sallam ndax yéen jàpp ngeen ne kenn ci yéen bu amoon ak dex goo xam ne gu neex la ci buntu këram bés bu nekk mu summeeku sangu fa juróomi yoon ndax jàpp ngeen ne ku mel nii tilim dana des si moom ñu ne ko déedéet mu ne nag noonu la julli juróom di mel dafay laabal doomu aadama bi ci biiram comme na nga xam ni noonu la koy laabale ci biti suñu borom bi mu ñu san santay ñu jàpp suñu borom bi mu ñu santee ñu sangu lan la tëj aaya ba mooy yàlla day nee na bugguma leen a sonal walakin yuridu li yutahirakum wala yutimma ni'amatahu alaykum wala allakum ay laallakum tashkurun suñu borom mu ne li ma bëgg mooy laabal leen yéen jullit looloo tax waatal billaahi ne ki gën a set ci kaw suuf moom muy jullit moom la yàlla sant mu laabal léppam am naa yéeféer bi nga xam ne julliwul xamul lan mooy la nga xamee ne nii mooy wàllu set yoonam nekkul ci loolu am naa yow jullit da ngay xam ne sa biir na doon la nga jiital la na doon lu mën a doon lépp dafa war a doon loo xam ne lu set la dafa war a doon lu laab la moo tax suñu borom ni dama bëgg ngir laabal leen ngiree boole ci it fóot la nga xam ne moom mooy seeni bakkaar et yéen mbokk jullit xam leen ne laa bëgg lislaam day bokk na la ca feeñ lu rafet la waaye la ca gën a am solo mooy lan mooy jéem a laabal suñu xol yi doomu aadama boo sonnee ci laabal sa jëmm ca laabaloo la nga xam ne mooy sab xol ngal la waaye na nga xamee ne yaa ngi yàq la nga xam ne mooy sa temps ak laab ca xol lay jóge suñu borom yàlla jàll wa ala ni yawma la yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim allaaxira mi ngi ñëw suñu demee allaaxira du nekk ak dàqoona toiletu moom mooy texe ka gënoon a rafet la nga xam ne jëmm mooy kay texe waaye suñu borom nee na mooy bis boo xam ni alal ja nga amoon du la jëriñ dara njaboot ga nga amoon du la jëriñ dara xanaa lu dul koo xam ne bi muy dee xolam ba ma nga set wecc xalbun salim ma nga set wecc ci lan ma nga set wecc ci bokkaale ma nga set wecc ci lépp loo xam ne nii dafay jur jukko ju bon wala wax ju bon rasul sallallahu alayhi wa sallam toog na ci mbooloo benn waaye jóg na ko ayyu mi yàlla yónni waa nit ñi moom kan moo ci gën yonente bi alayhi salaam ne leen mooy kullu maxmuumul qalb saduqul lisaan ki gën ci nit ñi mooy koo xam ne xolam ba set na leer na làmmiñam ba dëggu na sahaaba yi na ko waaw xol bu set moom mooy lan mooy làmmiñ bu dëgg ñun xam nañ ko naam waaye xol bu set mooy lan lu jiitu mbokk mooy làmmiñ bu dëgg mooy làmmiñ bu set set ci shirk set ci toon doomu aadama yi set ci wax lu bon loolu lañu suñu boroom subhanahu wa taala sant ca mooy wax leen wax joo xam ne wax ju dëggu la su ngeen ko defee yàlla jubal seeni jëf baal leen seeni bakkaar rasul sallallahu alayhi wasallam teg ci ne ab xol day du mën a jub du mën a baax lu dul day fekk ne làmmiñ daa jub làmmiñ baax kon la jiitu mooy xol boo làmmiñ boo xam ne bu dëggu la làmmiñ boo xam ne bu set la waaye yu mu yàlla yónni lan nag mooy xol bu leer lan mooy xol bu set rasul sallallahu alayhi wasallam ne leen mooy xol boo xamee ni nii ak ragal yàlla ma nga ca lan mooy ragal yàlla mooy ragal yàlla ba bañ a sàggane ay ndigalam ragal yàlla ba bañ a jege ay tereem waaye gannaaw ba mooy xol boo xam ne benn bàkkaar nekku ca benn bew ci kaw doomu aadama yi nekku ca ci di leen xeeb benn noonoo ak doomu aadama yi nekku ca waaye benn iñaan ci doomu aadama yi nekku ca ku mel nii day mooy ka nga xam ne moo gën ci doomu aadama yi mi ngi noonu ka gën ci doomu aadama yi mooy ka nga xam ne làmmiñam ba set ne wecc dara du ci génne lu dul lu set lu sell lu yàlla gërëm koo xam ne biir xolam ba set ne wecc amul lenn lu mu ca denc ci shirk ci rëy ci iñaan kii mooy ka gën ci nit ñi mbokk julit suñu borom subhanahu wa taala day mi ngi nettali ci hadis boo xam ne kaka jële ci moom mooy ki ñu duppee suñu jàkk ji di saad ibn abi waqas nee na toog na ñoom yonent bi alei salatu wasalaam mu ne ay yéen julit ñi yàlla day dafa teey ca daa bëgg lu teey yàlla dafa sell daa bëgg lu sell yàlla dafa tedd te daa bëgg ku tedd yàlla dafa tabe te yàlla daa bëgg jaam ya tabe ngal la waaye dee leen laabal seen kër yi bu leen mel ni yahud yi nga xamee ne nii boo demee seen kër ku bëgg a cabinet foo tourné cabinet ku bëgg a saw foo tourné saw ngal la waaye dee leen laabal seen kër yi ay yow mbokk jullit yaa ngi gis islam fi muy jëmee ak yow commencé la ne la góorgóorlu laabalal sa xol bi laabalal sa lammiñ bi laabalal sa cër yi waaye i tamit fa nga xam ne da nga fay dëkkee ngal la waaye góorgóorlu nga daal di koy laabal ca loolee i tamit di rôle bu rëy boo xamee ne nii ka ca am wàll ga mooy la ëpp mooy la nga xam ne mooy suñu mbokk jigéen ñi ñu yeneen ki ba alei salatu wasalaam ne leen ñoom ñooy sàmm ca la nga xam ne ni moom mooy ci kër ya mbokk suñu waxee laabal kër yi bokk na it la gën a am solo mooy di laabal néegu yàlla bi waaye suñu waxee laabal néegu yàlla bi ngal la waaye jullit ñi bàyyi leen xel heure boo ñëwee ci néegu yàlla xamal ne mbooloo ñoo fiy daje bàyyil xel ak bari ñoo xamee ne nii dañuy jóge ci douche ya seen tànk yi tooy xëpp seen yoon nekku ci ñuy jaar ci moquette bi jaar ci kanamu nit ñi di dem loolee nekk na loo xam ne lu doy waar la am na benn français bu mës a ñëw fii nekk fi ak ñun benn tafsir gannaaw ba bokk na li mu ma doon wax mooy imaam mais nit ñi lu tax du ñu respecté seen li ñuy def heure bu ñu jógee ci wanag yi loolee mbokk mbir la moo xam ne war nañ ci bàyyi xel góor ak jigéen néegu yàlla lan moo war a nekk taxawaayu jullit mooy xool ana lan moo fi nekk lu lu taq ma fexe nu ma ko dindee amaa yow di ko taqal loolu ëpp na xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na benn jigéen boo xam ni daf daan nekk di bale jàkka ji yonent bi toog ay fan gisu ko soxna bu ñuul la woon yonent bi ne waaw ana soxna bi doon bale fii jàkka ji ñu ne ko yi mu yàlla yónni moom day faatu na waaye bi muy faatu dafa fekkoon mu tàng lool da ngaa wooroon kaza wa kaza waxuñu la ko yonent bi alayhi salaam dafa mer mu ne lu tax waxu leen ma ko kaay leen ngeen yóbbu ma ci xabru ba ànd ak saxaaba yi dem ba ca armeel ya tiim xabroom ba ñaanal ko lan moo waral loolu mooy ngir da daan ñëw di ba di di bale néegu yàlla bi fa lillahi alhamdu yàlla def na suñu biir ay góor waaye rawatina ay jigéen yi nga xam ne ñoo fii bari di daje di ko setal néegu yàlla bi ci biir di ko setal ci biti yal na yàlla laabal leen laabal seenu njaboot ay yéen mbokk julit rasul sallallahu alayhi wa sallam ci loolu la ñuy waxoon ni sama borom wan na ma sama tuyaaba yi xeet yi nar a am yowmal qiyaama ba wan ma ci sax koo xam ni bant bi ñuy dugal ci biir bëñ nga xam ni à peine lu tuutee tuuti la gis ci jàkka ji rek mu daal di koy jël génne ko nee na tuyaaba boobu yàlla wan na ma ko kon nga la waay bu leen xeeb ci jëf ju baax lenn lu mën a doon mbokk loolu mooy kër yi loolu mooy jàkka yi waaye gannaaw boobu nañ dem ci mbedd mi mbedd moomee nga xam ne moom la autorité yi doon làpp set setal ci fan yi passé a rasul sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy wax ni xam leen ne day ngëm yàlla nekk na juróom-ñaar fukki wàll ak nangam ba ca gën a kawe mooy saxal kaddu laa ilaha illa allah waaye ba ca gën a suufe bokk na ca nga gis luy lor ci yoon bi nga teggi ko mbokk gis luy lor ci yoon bi ñaar lay mën a doon loo xam ne nii mën na fakasal doomu aadama gaañ ko wala loo xam ni gis nga ko doomu aadama yi di gis da leen di lor wala xet ga cay jóge da leen di lor loolu lépp di ay mbarit yu ñuy teg ci àll ba lii mbokk gis ko dindi ko ci ngëm yàlla la bokk léegi nag yéenee laaj seen bopp question bu dee gis luy lor ci yoon bi nga dindi ko ci ngëm yàlla la nekk ka jël luy lor teg ko ci yoon bi moom la muy def ci lan la bokk kooku ku nekk yaa koy tontul sa bopp loolee kon mbokk nañ moytu bu baax a baax bale sa kër ba mu set jël mbalit ma dem ca wetu kër jàmbur tegal ko fa moom mi ngi noonu na doon taliba la wala feneen sax ya ca nekk di génn di dem xet ga nekk di génn di dem yow nga toog sa kër mbokk loolee def nga musiba bu rëy ca mooy islaam bi day bokk na ci lu mu gën a moytuloo nit ñi mooy lor dëkkandoo rasul sallallahu alayhi wasallam mu ne wallahi laa yu'min gëmul de wax ko ñetti yoon mooy koo xam ne nii dafay doon koo xam ne kuy lor ay dëkkandoom la ay yéen mbokk julit bokk na loo xam ne nii day sunu borom yàlla subhanahu wa taala saxal na ko ci ab téeréem sant ko ab yonentam ba nga xamee ni nii naafiq ya tabax nañu seen jàkka ca Madina suñu borom na ko bu fa taxaw mukk demal di ànd ak waa masjidu Quba la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqu an taquuma fiihi fiihi rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin ay yow yonenti yàlla deel ànd ak waa masjidu Quba ca bàyyi naafiq yi ndax ñoom day niti jàkka lañu yoo xam ne dañoo bëgg di laab te yàlla daa bëgg jaamam yi nga xam ne dañuy laab nga la wayewu julit fexe ba laabal sa biir laabal sa biti laabal sa makkaan laabal say mbedd laabal sa dëkk xamal ne loolu yaa ngi def ci loo xam ne lu yàlla bëgg la yaa ngi def loo xam ne nit ñi dañ koo bëgg ca it islam ba mu koy jàngale depuis quatorze siècle gannaaw ba lañ dem ba médecine moderne mujj génne ni la ëpp ci feebar yi am ci doomu aadama yi rawatina feebar yi leen di faagaagal loolee peste la waliyaas billah choléra la waliyaas billah obala la waliyaas billah yooyu yépp ca saan ba mooy ak salte ak salte rek waaye ak set fu mat feebar jóge fa loolee moo tax ba mbokk islaam moom jàng lu ñu démb jullit fexeel ba laabalal sa yaram laabalal sa lekk laabal la nga xam ne mooy say place lii day wane kawtéef la ci kawtéefu yàlla ci ne muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mbokk lislaam mi ngi nii ànd ak doomu aadama ànd ak doomu aadama ci ne ko del set del set del set bu demee nag ba nga xamee ne nii faatu na mënatulul boppam dara suñu borom ne hey yéen jullit ñi ko fekke waxuma ay mbokkam de yéen jullit ñi même bu doon ab chinois la boo xam ne nii jullit la amuleen droit suul ko lu dul ngeen dugal ko ci ab ruq sangu ko ba mu set wecci jël yére yu sell daal di ko koy muure doo ko jébbal boroomam mbokk ndax gis nañu lu gën a am importance ci woote ci set gu mel ni lii kon mbir la boo xam ne nii nga la waay nañ ko bàyyi xel bu baax képp koo xam ne bëgg nga am cawarte ci sa yaram feebar yi gën laa sori képp koo xam ne bëgg nga doomu aadama yi bëgg la malaaka yi borom bi bëgg la malaaka yooyu nga xam ne nii lépp loo xam ne ànd na xet gu naqari lépp loo xam ne salte la malaaka du ko jege rasul sallallahu alayhi wasallam daana wax ne jàkk ji képp ku fi ñëw ngeen gis ne am na xet gu muy xeeñ ca laaj bañ daan lekk génne leen ko jàkk ci loolu la yonent bi alayhi salaam daan wax yonent bi alayhi salaam daan wax kenn ci yéen ngalawaay bu mu jógee ci service am rek ak tilimam dem ca jumaa ji ca sanguwul lii lépp mbokk kon lay boole ngërëmal yàlla ngërëmal doomu aadama yi ngërëmal malaaka yi mooy doomu aadama bi set zahiran wa batina donte ne set googu bu ko fàtte abadan ba ca jiitu mooy setug xol setug làmmiñ setug jëmm setug yére setug la nga xam ne ni mooy sa place ba nga nekke setug la nga xam ne mooy mbedd ma nga nekkee gannaaw ba nga wootee jëm ci set lii day mbokk suñu borom yàlla nee na wallahu yuhibbul mutahhirin yàlla day bëgg jaamam yi nga xam ne dañuy laab yàlla na yàlla laabal ñu ci biir laabal ñu ci biti yàlla nañu yàlla boole ci jaamam yi nga xam ne dañuy laab adduna laab alaxira yàlla na yàlla subhanahu wa taala laabal suñuy xol yàlla na yàlla laabal suñuy làmmiñ yàlla na yàlla laabal suñuy jëmm yàlla na yàlla laabalal ñu suñuy kër ak suñuy jàkka yàlla na yàlla laabalal ñu suñuy xabru yàlla na yàlla laabalal ñu suñuy dekki waaye ëllëg yowmal qiyaama yàlla na yàlla yàlla yëkkati suñuy daraja àdduna ak alaaxira may ñu afwa wal aafiya fi dunya wal aaxira allahuma tahhir qulubana allahuma sabbit qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد ان نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك